maa ngi sant ñëpp euh, di gërëm ñëpp euh, xam ngeen ni léegi léegi assemblée nationale euh, voté na à l'unanimité et sans débat loi bi nga xam ne moom la ñu leen indiloon mu concerné biosécurité biosécurité nag boo ko déggee maanaam mooy naka la ñuy fexe ba li nga xam ne moom mooy les organismes génétiquement modifiés mooy Euh, les organismes vivants modifiés moom moo wund euh, li nga xam ne moom mooy les organismes génétiquement modifiés naka la ñuy fexe ba par rapport ak loi bi nga xam ne loi 2009 bi nga xam ne moo créé woon avec avec euh, les projets les décrets yi nga xam ne moo si topp moo créé woon li ñu tuddee woon agence nationale de la biosécurité Sénégal amoon ay engagements internationaux yu mu jëloon par rapport ak li nga xam ne moom mooy les OGM ñu war a tey. Euh, parfaire parfaire suñu euh, cadre juridique euh, pour que ñu mun a utiliser les OGM parce que tey jii sur le plan international mënuñu ñàkk utiliser li nga xam ne moom mooy les OGM la technique c'est de d'assurer une très bonne régulation pour fexe ba li nga xam ne utilisation OGM du indi ay ngaañ-ngaañ ci population yi waaye ñu mun a profiter ci avantages yi nga xam ne OGM yi mu de koy procurer